ñu ñëw ci bloc de l'opposition et on va d'abord sànq da nga wax Karim Wade dem na déposer caution am ñu ngi collecté seeni parrainage moom nommé na sax euh, son mandataire national euh, da nga toogoon fii nga ne tant que gisuloo ko doo gëm ne dina dina dina ñëw est-ce que sa venue se précise est-ce que sa participation à cette élection-là est-ce qu'elle précise d'après signaux yi ñu jot wax na ma ni dina ñëw. Karim Wade ci boppam. waaw nee ma dinaa ñëw mais damay tànn euh, moment gi bi gën a baax pour ñëw. c'est-à-dire waaw daf ni ma comme course la. may tànn moment boo xam ne bu ma ñëwee day fekk ma nekk vitesse de croisière balaa affaire yi wàccaat élection bi ñëw. mais xam nga bu ñëwee rek affaire day jóg jóg boobu lay la bëgg ci phase jóg boobu fekk élection yi agsi mais man dafa am leneen lu ma yaakaar ni moo tax. Hmm. muy taaxiru. lan nga yaakaar. xëy na xamul ban interprétation le conseil constitutionnel di def ci amendement bi cent trente milliards yi. te loolu processus bi réglé wu ko. waaw loolu lay xaar. parce que xam naa li teyeer xelam mooy li Khalifa Sall dem fay xam nga 5 millions Khalifa Sall mën na ko fay. mais 130 fay nañ ko sax waaw 130 et quelques milliards. 138 loolu Karim Wade affaire même bu ko mënee fay dafay comprendre je pense que li muy xaar mooy xool lan la conseil constitutionnel di wax lool ci loolu est-ce que loolu dina tax conseil constitutionnel téye ko mu bañ a nekk candidat. bu fekkee ne conseil constitutionnel téye ko ndax loolu mu nekk ci liste candidature yi mu ñëw. mais xam nga loolu loolu mooy sama jàngat man. le 10 janvier 10 ah, 11 janvier. ci la ñuy génne la liste définitive. Voilà. des candidats retenus. Voilà. un mois pour quelqu'un qui a quitté le pays depuis 2015 le pays dont les réalités ont changé euh, ndax loolu est-ce que c'est pas risqué est-ce que li mu xalaat ne bu ñëwee mbir mi day yéeg. balaa muy wàcc mu gagné élection yi est-ce que pronostic bi c'est pas risqué. bi ak ñeneen ñi mooy moom dafa am appareil PDS moom appareil la PDS moom dafa am parti ci électorat Sénégal ba pare moom ñëwaatam euh, luy am solo la bu àndeek communication bi war. Karim Wade bu ñëwee ni cëpp aéroport jubali Touba wax wolof. <laughs> def miti non non non attends li ma la wax nii c'est important. Eh. def miti ah non il peut un faire sérieux ma ne il peut faire mal. un sérieux challenger. il peut euh, contre le xam nga lu tax xam nga lu tax xanaa xamoon ne am na ñu bari ñoo xam ni sax. ñu naroon wateel Sonko la par défaut mën nañu wateel Karim Wade. nañu rallié wu ci Karim waaw xam nga doo gis mukk ko mënoon wateel Sonko di dem di wateel Macky mais da ñu mënoon wateel Sonko dem di wateel Karim Wade doo gis mukk ku mënoon wateel Sonko dem di wateel Khalifa Sall mais di nga gis ku mënoon wateel Sonko di wateel Karim Wade moo tax man la c'est un candidat extrêmement